asalaamaaleykum mbokk yi teel a altine fukki fan ak benn ci jumaada saani yi muy weeru maamu koor di juróom benneelu weer ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ñett fukki fan ak benn bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu wala ku ca daloo altine ju nekk sunna la ci ku ko man mu woor ko ñaanu bis bi yow sama borom yàlla na nga jéggal yàlla na nga yërëm yow yaay ngeen ji yërëme rabbi xfir warxam wa anta xayru raximin rabbi xfir warxam wa anta xayru raximin xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na kenn ci yéen lekkul mukk ñam woo xam ne moo gën liy bàyyeekoo ci loxoom yonente yàlla daawud alayhi salaam li bàyyeekoo ci li mu daan liggéey ci loxol boppam ci la daan lekk xadis bi buxaari nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu taaman qattu xayran min an yakula min amali yadih wa inna nabiyallahi daawuda alayhi salaam kaana yakulu min amali yadih rawaahu buxaari